ay bismillahi irahmani irahim alhamdulilah alhamdulilah xaqil mubin man kawnuhu liya yabin ala kitaabil maha jamihi nihami wa ma kallamahu xaala innaka alyawma ladayna makinun amin maha balaa'i wa mahal amraadi wa ridda tanxaadu li agraadi mbokk ñoo ngi am mbégte mu yaatoo yaatu toog jàkkaarloo ak yéen seen télévision Mafatihul Bichri TV la télévision islamique au service de Bakar Khadimu Rasul mbokk yi xam ngeen ne sant yàlla war na jaam sant yàlla war na ab jullit waaye sant yàlla war na murit ci mbir googu nag ki lay dogalu ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala Serigne Touba Alhaji Cheikh Sidil Muxtaar yàgg fi loolu te waaye ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa Serigne Cheikh Fall jëmb maam Cheikh Raaya Fall Babul Mouridina yàgg fi loolu te wér waaye ñaan itam suñu borom subhaanahu wa taala Serigne Abou Mbacké Baraka ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal suñu borom bu ñu ko fee yàggal mbokk yi xam ngeen ne euh, bis bu dee dëgg ñëw suñu kanam di kan du rajab Mafatihul Bichri TV saa su ne mi ngi ànd ak yéen takk nañ laxasaay nag fu ñu jëm ilaa Touba insha allahu rabbi ca màggal Kazu Rajab waaye ñu koy waaj fii ak fu ma Fatihul Bichri TV nekk àndandoo fi ak équipe bi yëpp nu fas yéene sant suñu borom subhanahu wa taala ko màggale ko Cheikh Mouhamadul Fadal foofu lay nuyoo sama xarit euh, sëriñ Koso Sey di ko dalal ci télévision ba Fatihul Bichri dox sëriñ Koso mu noonu kon xanaa waajtaay waa ngi bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi xuril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne ñoo sago seen télévision Mafatihul Bichri ñu ngi am mbégte bu baax ci fay sëriñ Moustapha nuyoo di sant bu baax sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo la tawféexal ci ñu am ak wér jàkkaarloog mbokk yi nga xam ne ñoo sago seen télévision Mafatihul Bichri li leen ñaanal sunuy wax fekk leen ci jàmm incha allahu taala ñu fas yéene dugg nag ci waxtaan wi nga xamante ne ñeel na waajtaayu Kazu Rajab te ñu war a waxtaane Cheikh Mamadou Fadal sëñ Fa ñu ngi lay fay nuyoo bu baax a baax waaye di nuyu bokk yi nga xam ni mooy bokk yi nga xam ne ñoo safoo télévision Mafaatihul Bichri saa su nekk ñu fay seetaan émission yu am solo yi nga xam ne euh, ñu ngi ko fay amal tey jii nag ñu ngi fii nag fas yéene waxtaane lu jëm nag ci waajtaayu Kazu Rajab bi nga xam ne incha allahu taala am nañ jublu te muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer yi nga xam ne moom lañ nekk incha allah suñu soir. Euh, waaleykum salaam wa rahmatulah taala barakatuhu jërëjëf kon naa su ma la waxee ne la alhamdulilah fi rajabin fi shahbanin wa fi ramadan uh-huh. la may wax. waa jërëjëf euh, day mel ni loolu. sëriñ bi moom junjoon na ko mooy euh, li wax ne busra lana qad ataana aljuudu walkaramu lamastahalat alayna ajhurul hurum mel ni dañ koo laaj ni ko ni ko loo ci am mu ne xusna mataaban ma al kufraani fi rajabin wa nartaji fi lbawaaqi rawda man xurimu euh, da nga dégg ni kon ñetti weer yooyu muy ajhurul hurum yooyu mhm. Sëriñ Tuubaa fonkoon na ko lool euh, bind na ci lu bare bare bi euh, ma ci joxe rek mooy boo demee ci xasidaam gi nga xam ne moom lañ duppee télé bi muy ma fàttewul bisiri ginnaaw bi ma waxee aoudu billahi mina shaytaani rajim bismillahi am rahim da gis ni ci weer wi la ko def ndax dana bi xurmati rajabin wa shaabaana wa shahru ramadan alladi unzila fi alquran waaye huddan li naas wa bayyinaatin min al-hudaa wal furqaan mm-hmm. wa bi hurmati kulli man azamtuhu wa kulli man azamtuhu mm-hmm. nga gis ne kon ñetti weer yooyu weer la woon yoo xam ne Sëriñ Tuubaa fonkal na leen lool joxal mm-hmm. leen wàccuwaay lool waaye dem ba nga xamante ne wax na sax ci nuuru daayira ni ni wax ni eh, kazu rajabin akramani ci lim jox loola bokk na ci li tax mu wax ko mooy eh, waruma ji nga xamante ne joxal na ko weeru ramadaan weeru weeru weeru rajab ndax rajab ku ne xam na ne mooy weeru sunu borom subhaanahu wa kon euh, loolaat xejj ki nga xamante ne Sëñ suñ sunu borom may na ko ci boppam mu xejj ko looloo waral sahru rajab mu doonoon weer woo xam ni weeru mbégteem la woon weer la xam ni weeram loon woo xam ni dafa wax ni maanaam ci la ko sunu borom terale waaye muy weer woo xam ne sëriñ bi da ci indi woon ay jàngale yu bare bare bare waaye mel na ci biir liggéey boobu mu doon liggéeyal suñu borom subhaanahu wa taala boroom borom da ko cee dabewaat mm-hmm. ak Cheikh Mouhamadou Fadal mm-hmm. mu gane ci jamono noonu nga xamante ne siiw na ni ñu ko xamee mm-hmm. nga xam ni ay wax yu xorom la nga xam ne wax ne yonent bi dañ lay rek mën a cëpp muy weer woo xam ne weer wu mat a bàyyi xel la weer mat jàngale la weer mat a fonk la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay wax yu bari waaye gis nga ne Sëriñ Tuubaa indi na ci ay xasida yu bare bare bare yoo xam ni mhm. ci weeru rajab la ko la ko la ko la ko woye mhm. loola lam ci jublu mooy kon dafa mel ni mhm. weeru rajab weer la woo xam ni day weeru sunu borom te ku ne xam na ni sëriñ Touba boromam da koo ñoroon mu jaare woon ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa waaye daan ko daan ko daan ko tagg daan ko daan daan julli ci moom saa su ne soo gisee rajab day mel def na ci ay way yu baree bare bare waaye def na ci ay xasida yu bare bare suñu soir la ah, def na ci ay way yu baree bare waaye def na ci ay xasida yu bare bare tax na ci rajab ci la ñu wax ne akramani ka azu rajabin akramani uh-huh. li ko waral mooy innal fadli la ci ma yasa wala azul fadlul azim uh-huh. kooku nag mooy kan Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké uh-huh. mu ngi gane àdduna ci diggante ñaari ñu tedd mi Cheikh Ahmadul Khadim ni ko ñëpp xamee ak soxna wa mu ngi gën a euh, ci incha euh, le 26 euh, ci weeru rajab dajek bisub aljuma ci 1305 ci miladiya waaye ci hijriya bu ñu ñëwee ci 1888 te dëkk boobu ñuy wax Daaru Salaam. Oh. bi nga xamante ni gën na àdduna wax nañu ne Cheikhul Khadim dafa wax ne mën ko jox ween bu mu mas dara ndax liir bi dafa ëndaale koor. Oh. ëndaale na koor bi nga xamante ni itam loolu am na. Cheikhul Khadim moo bind ci turam ci loxo bu tedd boobu bind Muhammad joxe tur wi waaye bi ba ci yoor yoor ba wax nañu ne dañu séen ci asamaan si alfaadal mel ni kon mooy complément wu tur wi uh-huh. sunu borom nag joxe ko Cheikhul Khadim mu indi Muhammadul Faadal uh-huh. loolu ana loo ci dolli waaw jërëjëf sëñ Moussa xam nga dafay mel ni Cheikh Amadou Fadal noonu nga ko waxee léegi ci aaya bi saalika fadlulaa yuuti man yasa wala su fadlun azim mm-hmm. day mel ni Cheikh Amadou Fadal suñu borom da koo teel a waajal mm-hmm. waajal gi nag xam ngeen ni alxuraan day wax ni wal baladu tayyibun yaxraju nabaatu bi si rabbihi mm-hmm. ndax xam ngeen si Cheikh Amadou Cheikh Amadou Fadal soxnaaw Buso mooy waajuram mu bokk ak Sëriñ Baara lépp daanaka mën naa ne euh, soxnaaw Buso doon koo xam ni euh, jigéen ju ràññiku la ndax jekk ci diini mm-hmm. boo ko soxna jaara waaye jokk ak sëriñ Mbàkke Buso mm-hmm. kon dafay mel ne booy xool Cheikh Amadou Fadal mboolem ñi fi baax ñëpp ay bokkam lañ boo ko doon jàngale mm-hmm. loolu nga ko waxee muy lu am solo loo xam ne euh, ak euh, ñëwam àdduna ganeem àdduna rek maanaam miracle yu yéeme yéeme da caa feeñ yu yu am solo xam naa am na ci loo xam ne du du xam naa du waxi télé. Mm-hmm. waaye Cheikh Mamadou Fadal dafa mel ne suñu borom daf koo waajalan ngir xam ne kii kat ëllëg am na lu ko war a dénk lu rëy rëy mm-hmm. ndax Serigne Touba lépp loo xam ne mas na koo ñaan andil na ko aw lay. Mm-hmm. ndax bam naa wax fir liman banoo bi naa ahar rafe wax fir liman amarahum bi jamia dafay mel ni kon waajalan na ko mel ni Cheikh Mamadou Fadal. nga xam ne moom nag. tey moo war a ñëw doon koo xam moo war a complété wala wala mooy ki nga xamante ne tey moo war a yëkkati liggéeyu Sëriñ Tuubaa boobu nga xam ni Sëriñ Tuubaa naalal na ko te tudd ko ba noppi. Mm-hmm. te xam nga ne looloot dafay mel ni bokk na ci euh, li lay wan ni Cheikh Amadou Fadel suñu borom ko waajal bu yàgg yàgg. Mm-hmm. ginnaaw bi ko tànnalee waajur wu góor ak wu jigéen. Mm-hmm. xam nga ne Cheikh Amadou Fadel dégg nga noonu mu ko doon waxee. xam naa buñ ci gën a dugg ci thème bi dana gën a dana gën a leer. waaw ginnaaw boo xamante ne juddoo na Daaru Salaam. doon doomi Cheikhul Khadim mhm. doon doomi Soxna Bousso mhm. day mel ni loolu nag doyu ko dafa daan dem jàng ci sëriñ Daam Abdourahmane Lo mhm. waaye jàng ci mamoor Mor Jaara mi nga xamante ni magi sëriñ Tuubaa la waaye mottale àlluwam ci Maam Cerno Ibrahima Fati loola moo ko waxal boppam ndax daa wax ne son Baay Cerno danoo jàngal bañ ni ar mu yar nu ba ni nër kon da gis ni moom doy doowul rek maanaam maay doomi Seexul Xadim waaye daa jaar fi mu war a jaar si njàngam alxuraanul karim waaye gis nga ko ci tërbiya ba nga xamante ne waajtaay wi nga xamante ne maanaam mooy waajtaay wi suñu borom namm ci moom te muy liggéeyal sëriñ Touba lu toll ne lii mu ko liggéeyal muy jumaa ji waaye yaatal yoonu Serigne Touba bi dafa mel ne loolaa taxan suñu borom waajal ko andi ko parcours yooyu nga xam ne fi la jaar suñu soir. Euh, andi ko parcours ne euh, Ibrahima Faati euh, mu mel ne itam wax nañu ne bi nga xamante ne gane na àdduna mu ngi fekk Serigne Touba Xaadimu Rasuul xam ne moom lañu dëppee télé bi. li uh-huh. ma fàtte waxoon bi si ba uh-huh. dafa mel ne soriwul. ndax Serigne uh-huh. Touba mooy ni ko waxee léegi dafa wax ne lam yabqa fil xalqi ma yatli bi barakati wa qad ataani matli bi loolu mooy dafa wax ne ñi nga xamante ni jiitu woon noonu laataa may dikk te sama borom gërëm leen bi ma dikkee dañoo xemem sama jëf ñu ngay kër kër yi ci keppaar suñu borom bi ngi sàkku si sama barke bokkoon na ci waxi Cheikh Abdoulaye jooju mu wax ne koo xamante ne nii dañ koo sàkku ci yow di ko sarxu di ko yalwaan ba mu nangu laa jur boo dikkee ba jëfal ko lii mu lii nga koy jëfal nag gërëm ko sant ko wóolu ko yaakaar ko doyloo ko moom Cheikh Khadim dong lañ koy def. Oh. foofu la Cheikh Mouhamed Fadal nekkoon ba taxoon na keroog bi nga xamante ne sëñ moo roqee bu so Cheikh Mouhamadou Moustapha sëriñ ma Massamba sëriñ Touba dajale woon na ne ak moom Cheikh Mouhamed Fadal wax leen waxam jure yi joojee du bàyyi kenn du ma nijaayi kenn du ma magi kenn li fi nekk day jaay te ku jaay ma jënd la Cheikh Mouhamed Fadal daal di jël ak njureelam jëbal ko Cheikh Khadim ba noppi jilaat ko def ko hàddiya keroog mu ngay wane ne kon te dëggal na wér na ci moom. as-sidqu wa saadiqiina ci la bokk. waaw Cheikh Mamadou Fadal mooy ni ma la ko junjee woon léegi rek dafa doon koo xam ne suñu borom daf koo yàgg waajal. Mm-hmm. ndax ginnaaw boo xamante ne suñu borom jaaral na ko ci ñaari waajur yu baax yooyu walla yu gën yooyu muy Cheikh Amadou Bamba ak Soxna Awa mm-hmm. mu jàng fa mu war a jànge Cheikh Amadou Fadal doon koo xam ne naka jekk Serigne Touba da koo yàgg a bàyyi xel. Mm-hmm. ndax. Euh, bindal na Serigne Touba kaamil yu bari. Mhm. ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett bindal na ko. Mhm. Euh, dégg nga ko noonu nga xamante ne naka jekk Cheikh Fadal dafa doonoon koo xam ne. Mhm. Euh, maanaam nit koo xamante ne dafa feesan dell ak xam-xam. waaye lewetan domm na. doonoon koo xam ne maanaam suñ boroom mayan na ko may goo xam ne maanaam kun fa yakun la amee woon lu mu mas a wax suñu borom rek mu def ko. ndax. li tax mooy dafay mel ni daraja ji nga xamante ni suñu borom suñu borom ràngaale na ko ndax suñu borom wala yu'ti man yashaa'u la wax. mooy def ko ko soob. Mm-hmm. saalika fadlullahi yu'ti man yashaa'u mm-hmm. kon dafay mel ni yu'ti man yashaa'u googee. Mm-hmm. ci la suñ borom tibb nag jox ci suñ fallu euh, ngëneel loo xam ne tey damay faral di wax ni képp koo xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa nga ak koo mën a yaakaar it suñu fallu moom. moom def nga ko muy sëb sëriñ mhm. ndax bis jàq nga woo ko mhm. wala nga am problème woo ko mhm. te loolu ñépp ci bokk commencé te la kon mel na ni loola lu mu lu mu liggéey la diggante ma boromam ndax euh, bu dee ci ni nga xamante ni ni nga ko waxee léegi weer woowu mu wàcc day weer yi nga xamante ni ci azhorul xurum yi la bokk mooy dama ni lay da dani lay mën a cëpp jooju muy muy weer woo xam ne mooy weeru julli Mhm. muy kas rajab mhm. tey di weer woo xam ne Sëñ Tuubaa da cee waxal boppam ni mhm. ci kas rajab la ma sunu borom terale ci nuuru dare ni waaw kas rajabin ak këramani boo demee ci euh, am na feneen fu mu ko tënk wala yakun bi saydin xayrin wa rabaa wa bi jamaalin wa baqaayin wa baax nga xam ne foofu kas rajab la fi sëriñ bi tënk waaye ci noonu nga ko waxee xasida gi di ma faatul bishri dañoo wax ne Cheikh Amadou Fadal da ko fare woon lool loolu loolu loolu ñu bari siiw nañ siiw na ñu wax ko mm-hmm. waaye boo xoolee xasaayit bi la xasaayit dafa nekkaat ci biir xasida googu mm-hmm. loola siiwe na siiwe na dinaa koy faral di wax mm-hmm. ndax mbindum sëriñ bi euh, lépp yonent bi salaa salaam la ci jublu woon dëgg la waaye nag sëriñ bi amal na ak jagle ci borom goo xam ne lu ko neex lu ko soob ci digganteem ak borom mën na koo jëfe xasida googu ñi jàng xam nañ ni xasaayit bil xasaayit lañ koy wax mhm. maanaam xasida gu dugg ci biir xasida te foofu boo xoolee Sëriñ Tubaa boo xoolee tënk ba maanaam yow mu rajabin la Sëriñ Tubaa tënk te yow mu rajabin jooju mhm. am na ñu wéral ni da fekk na Cheikh Mamadou Fadal gane àdduna ñu wax ko sëriñ bi mhm. wax nañ ni mu bàyyi bëxër bi mu nekkan daal di indi yow mu rajabin jooju kon looloo tax ñu bare bare di askanale sëriñ bi ci xasida gi ñuy wax Mafaatul Bichri mhm. loola nag ni ma ko waxee jamono dafa dafa dafa doy waar mhm. te bari yu ñu yu ñu seet waaye lu mën a xew moom yow mu rajo bi moom Serigne Touba tënk na ko ci xasida gi mhm. te it xasida gi boo xoolee fi ne yow mu rajo bi jooju ñi ko Serigne Touba tënkit téewul fi ne yow mu rajo jooju boo ko adatee daf lay joxaat 374 yi nga xam ne mooy bayiti xasida bi kon nga xam ne kon booy xool day mel ni kon yow ma rajabin ji mën naa jàppit ñëw seex moom lu faadal ah, oh. ndax li tax moo jàpp 374 ji rek mhm. naa war naa a jàpp loolu te boo xoolee na ko waxee dafa wax ne yaa faadilan faddalahul xallaab mhm. yaa man bihi faaraqan al imlaaq yow mi yaa faadilan yow mi nga xam yaa aji gën ji mhm. faddalahu gënal na ko al xallaab aji bind ja yaa man bihi faaraqan al imlaaq nga xam ne boo ñëwee ba ci jeexintal gi dafa am lu ci nekk lu am solo loo xam ne

maalahu nastaaqu mhm. sala alayka al akramu alqalaaq mhm. nga xam ne kon dafay mel ne dafa wax ne si yow lañu làqe lépp loo xam doon nañ ko wut wala doon nañ ko xeentu xam nga kax foofu day taxaw taxawaayu Tuuba waaw bi ka kax keef uh-huh. ñaar fukk la xay uh-huh. na ah, ah, xaaf ni di ndigal uh-huh. di vingt-huit mu taxaw taxaw ñaar ñaar fukk juróom-ñett kon bi ka bi ka maanaam baala ak keef waaw maanaam bi kax taway naa maalahu nastaaxu sala alayka al akramul xalaam nga xam daal euh, bayit la yoo xam ne bayit yu bayit yu bayit yu yéeme la bayit yu bayit la yoo xam ne Sëriñ Tuubaa da ciy tënk euh, rajab fi euh, boo xoolee ci biir téere boobu di Mafaatul Bichri da nga gis ni sëriñ bi andi na ci rajab lu bare bare andi na ci rajab fi bare na ci bayit yoo xam ne boo ko xoolee day dëppoo rajab mm-hmm. euh, am na ci yoo xam ne sax am na ci benn rajab boo xam ne kullu aqrabin wa ajnabi mm-hmm. wenn xab bu mujj wala jël indi ci rajab waaw ci ci ci ci ci ba tey ci ma faatihul bishri mm-hmm. muy xasida gu xasida gu yéeme goo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko woy ci weer woowu waaye mu mel ni euh, andi na ci saabaan mm-hmm. waaye dafay mel ni ci mujjantal ga damay wax ni gisuma fu mu ci wax fu mu ci wax ramadaan mm-hmm. waaye gis nañ ci fu ci wax alquranul karim te loola mooy wane ni kon alquran ci biir ramadaan da nga gis ne kon alquran lay junj foofu mm-hmm. muy daal xasida goo xam ne xasida gu yéeme la ko fees dell dell ak njariñ am na geneen koo xam ne kasu zahrullahi rajab la ko tënk kazu zahrullahi rajab mhm. am na yeneen yeneen xasida yoo xam ne mhm. rajab la ko tudde muy rabis tajib rabis tajib rajab nga xam ne xasida yu bare bare la la la la la bind ci rajab mhm. di wane may yi nga xam ne moom la ko suñu may comme ni ma la ko junj woon ci busraa lanaa ndax bi mu ne busraa lanaa xat ataa nal judd wal karama lamastahanat alayna lazorul uxuruma ñu ne ko waaw day mel ni kon dañ ko naa waaw yow loo ci am mu ne xusna mataban maa al xufraani fii rajabin wa nartaji fil raw rawda man xorimu nga xam ni kon dafay mel ni sëriñ bi ngëneel yooyu nga xam ne suñu borom defal na ko ci mu di ko wax ci xasida yi mm-hmm. bokk na ci Cheikh Mouhamadou Fadal bokk na ci li nga xamante ne suñu borom fay na ko ci mm-hmm. weer woowu mm-hmm. loolu waral nag kazu rajab bu dikkee rañaan maag lépp dañ koy waxtaane biir Touba. waaye raña waaye waxtaane julli juróom yi nga xamante ne day sunub sërëja te yonante bi sallallahu taala wa sallam andil ni ko te Cheikh Mamadou Fadel it indiwaat leneen luy wane ni suñ borom li tax mu wàcce ko ci foofu ndax xam nga ne kon ni ci julli juróom bis bi ñu wàccee julli juróom nga wàcc nga taxaw fekk sëñ tubaa dafa mas a wax Cheikh Mamadou Fadel en 1952 waaw wax ko ne ko yow kat danga ma doon laaj ab liggéey boo xam da nga koy liggéeyal Sëriñ Tuubaa mm-hmm. daal ne ko joxe naa ndigal Cheikh Amadou Moustapha mu taxaw jumaa ji kon yow na nga dem Touba dimbali ko ca liggéey booba ku ñëw na la fa fekk ku dem na la fa bàyyi loolu en 1952 la ko wax mm-hmm. diirub ba mu fa demee ak léegi génnaatul Touba te ku ne xam na ni kon Cheikh Amadou Fadal bu ko suñu borom wàccee mm-hmm. ci biir Kazu Rajab bi nga xamante ni ci la wàcce julli mu ñëw taxawalaat néegub yàlla boo xam ni Sëriñ Touba moo waxal boppam ni banaaliyal baaxi binaa an baaqiyaat bi xëyri hatmin lil jinaan raqiyaat suñ borom tabaxal na ma tabax boo xam ne maanaam ba àjjana tabax mooma du màpp si Amadou Fadal taxaw ko kon loolu wane na ne kon moom la taxal ñu wàcce ko xam na ko waaye la mu wàcce ndool muy julli juróom it fay na ko tey jii bu doon nit man la bu fekkan am na bor Cheikh Amadou Fadal moo ko fay ba mu mat sëkk suñu euh, soir Cheikh Amadou Fadal moo ko fay ba mu mat sëkk mu mel ne kon dañuy wax rek ne euh, suñ ko so li kulli min jumlatil axyaari ma martabatin na ma ahmad al muxtaar al muxtaar faa mhm. Amadou Fadal Mbacké euh, Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jaar ak moom fi mu war a jaar ak moom mhm. ca gànnaar diggam ak Cerno Ibrahima Fadi wax nga ko mhm. diggam ak Sëriñ Daam Abdourahmane Do wax nga ko diggam ak maam Cheikh Rangé Fall dina ci dikk waaye mu tànnal ko njaboot gu baax njaboot gu tedd njaboot gu sell waaye Cheikh Amadou Fadal Mbacké itam xam liñ ko sédde woon xam li taxoon Sëriñ Tuubaa euh, boole ko ci liggéeyam waaye teg ci yoon bëgg bokk na ci dëkk yi nga xamante ni sanc na ko ndindi mhm. gi ñëpp xam mhm. mi ngi ko sanc 1914 ci mhm. ndigalu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mook Cheikh Madou Moustapha dem Tindoodi moom sanc na ko ci 1930 Madina Mbuub mu sanc ko ci 1932 Xayaan mu sanc ko ci 1938 Touba Mérina mu sanc ko ci 1948 Nayul Maram mu sanc ko ci 1952 Aliya mu sanc ko ci 1950 Uh-huh. Touba Bogo mu sanc ko ci 1968. Uh-huh. Touba Sora mu sanc ko ci 1961. Uh-huh. àndandoo ko magam ju baax ji Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim foofu laa bëgg nga dugg ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul daf ko woo ba mu ñëw yëkkati ñaari bayit bayit bu njëkk yi mu ne abqa salaamay karimi samadi ala nabi wasilati muhammadi yëkkati ko jox ko mu Modou Fadal daal di ko ne duggal ci néeg bi. Mhm. sëñ Fall dugg ci néeg bi mu daal di yabal Cheikh Mamadou Moustapha. Mhm. lii keroog ba ñu ko sëñ Mamadou nettali maag sëñ Njaga ànd. Mhm. ñu ngi ko joxe sëñ Cheikh Mamadou Moustapha daal ko ne duggal ci néeg bi koo ko mu dugg ci ba fekk fa Cheikh Mamadou Fall def ko jëwriñ. sëriñ Tuubaa toogaat ba mu yàgg jël baytu ñaareel yi ala nabi wa sayyid Muhammad ab kasalaami karim samadi jox ko Cheikh Mamadou Fadal dugg ne sëñ Tuubaa jox ko ndigal ko duggal ci ci néeg bi koo fekk jox ko bayit wi mu fekk fa Cheikh Mamadou Moustapha def ko muy kilifaam mu mel ne ñoom ñaar gis nga leen sëñ Tuubaa doon toggee abqa salaamay karimi samadi uh-huh. ala nabi wasilati muhammadi uh-huh. waaye kenn ku mos a dégg ci làmmiñu Cheikh Mamadou Fadal uh-huh. mu wax mu woowee Cheikh Mouhamadou Moustapha beneen tur bu dul sama mag ju baax ji dégg ko fenn amoon moo déggee rek naan sama mag ju baax ji Cheikh Mouhamadou Moustapha wax nañu ne am na bis ma ma daaneel ko jox la ñoo ne seeti Cheikh Mouhamadou Moustapha ca bayit bi mu nuyoog Cheikh bi mu nuyoog bëkk néeg ba noppi si Ibnu Amar si Ibnu Amar daal koy dalal ba noppi daay dem si Cheikh Modou Moussa fekkoon na Cheikh Moussa di bind. Cheikh Moussa ne ko boo demee laaj ko ndax warga ak café ba la ci bëgg. wax na ne Cheikh Modou Fadal bi sëñ bi bi bëkk néeg bu ñëwee si Ibnu Amar ñëwee ne ko nee na warga ak café ànd loo ci bëgg. Cheikh Modou Fadal da ko ne gannaaw tudd na leen ñoom ñaar ñëpp rek. andul ma leen. suñ ko soñ andil ko ñu di ko waajalal café gi ak kii di ko di ko di ko waaj a andil Cheikh Cheikh Cheikh Modou Fadal xéewlu ci kafe ga ak warga ba noppi mel ne dafa yàkkamti te bëggut a bëggut a déranger Cheikh Mahamadou Moustapha xool oh. fi mu ko tegoon dégg nga keroog bi ne Sëñ wax ne génn leen jaareen digg ñëw oh. ba ba mu dëppaat di ñëwaat oh. waaye keroog bi nga xamante ne ni euh, xaar na Cheikh Moustapha ba noppi euh, dafa daal di jug taxaw wékki mantab Cheikh Mahamadou Moustapha bi nekkoon ci mante bi porte mante bi daal di koy sol daal di génn bi mu génnee magi daal di xulees yëpp ñëw ñëw daal di koy song mu ne xanaa seen xel war naa dal ñu ne ko waaw bakk suñu xel dal na mu ne kon ne borom barak bee sa bàyyi Modou Moussa mais sama xanaa xel war naa dal. Uh-huh. sëñ ko sa xel daloon na dem. dégg ma uh-huh. Cheikh mu Moussa. Uh-huh. Uh, jërëjëf sëñ Moussa xam nga noonu nga ko waxee. Hmm. Uh, rawatina dëkk yu yooyu nga Cheikh Modou Fadal sanc hmm. dara wëralu ko woon loolu jàppale Cheikh Modou Moussa ci liggéeyu Serigne Touba bi. waaw ndax wax naa la diiru bi nga xamante ne Serigne Touba wax na ko ne ko demal ci sa mag ju baax ja. Hmm. ku ñëw fekk la fa ku dem bàyyi la fa. Mhm. musta am dara. dëgg la lépp lu mu liggéey jox na ko Cheikh Moussa ba mu jeex tàkk. dëgg la loola nag euh, firnde ja mooy ni nga ko waxee junj nga ko léegi euh, sëñ Cheikh Oumy yàlla na fi yàgg loolu te wér. amiin euh, moom day faral di wax ni noonu sunu baay jaayaan nañu bu yàgg maanaam ñun sunu sunu sunu sunu sunu sunu njureel ñun ay taalibe lañ la bëgg a wax. maanaam ñun ay taalibe lañ. waaw. ndax sunu sunu sunu bàyyi sëñ Fallu moo jaayoon ak njuróom jënd ko teele bi te ginnaaw bi ko sunu boroom nangoo mu defaat ko mu defaat ko addiya ci moom hmm. kon loola mooy mooy naka jekk moom daa jàppoon boppam addiya naka jekk daa jàppoon boppam teele bi sëñ Tuubaa sëñ sëñ Seex mi ma la wax danaa de bu ñëpp xàccale ñun mën noo xàcc ndax jaay nañu ba noppi nga xam ne kon loolu nga ciy dégge mooy euh, sëriñ Fallu li ñoroon mooy taxawal liggéeyub sëriñ tubaab bi te loolu nag fi jamono tollu tawi hmm. toppante nit ñi war koo bàyyi xel mm-hmm. ndax ku nangoo rafetal saw toppin ñu nangoo rafetal aw toppin jëm ci yow dëgg la loolaa waral bi nga xamante ne tooge na lalub sëñ Tuubaa bi mm-hmm. lépp lu mu bëgg da koy fekk fa mu ne waaye xoolal xoolal tey Cheikh Modou Fadal bi nga xamante ne sànc la dëkk yooyu lu ci mas a am lépp lu ci mas a am da koy jëtaat Cheikh Moussa Fall Karim mës na nangoo doon dara mm-hmm. ndax xam nga dafa am lu am solo loo xam ne ma du Fadal bu dee ci mag ñi ni mu ànde woon ak ñoom kenn mësutee ànd ak ñoom te loolu euh, tabaski gi nga xamante ne yàlla dogal na dañoo wax ne suñu Fallu dafa jiit doy na ci sëkk misaal waaw ndax wax nañ ni ñaari xar la ñu jox la ko benn bi moom benn bi Seexul Mustafaa Karim mhm. kooko jox ñaar yépp Seexul Mustafaa bi mu ko defee wax nañ ni kooka gis suñu lu mu ñëw ci kër Seexul Seexul Xadim ba mu fa ñëwee xam naa mu xalaat ni xëy na sëñ Fallu dana wax loolu ko tedd ki mhm. waaye sëñ Fallu ca gore ga waxu ko sëñ Tuubaa ba mu ne tëll rek dafa wax ne euh, na ngeen maroolo maroole naa leen ak Cheikh Amadou maroole naa leen ak Cheikh Amadou Fadal waaw maroole naa leen ak Cheikh Fadal Cheikh Amadou mhm. mhm. laa leen di booleel nga gis ni kon sëñ Tuubaa yàgg naa boole mag ñi ak Cheikh Amadou Fadal waaw nga xam ne loolaa waralal nag moom mësta bëgg dara ginnaaw bu mu jaayee ak njuróolam jënd ko ak teel bi maanaam ba Sëñ saa nekkee da jàpp woon Sëñ Moussa Sëñ Touba. maanaam jëppiwu ko woon maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam da koo jàpp woon ab sëriñam. wax nga ko léegi ci sa ci say wax. te boo xoolee day am na wax ju am solo joo xam boo gisee da nga da nga da gis ni. ni mu topp woon mag ñi ni mu rafetale woon ak taalibe bi moo ko moo ko rawan. ndax koo xam ne doon wax ni. Mhm. bëggumaa doon dara. bëggumaa doon ju doon doom ju bëgg a doon mbaay hmm. bëggumaa doon doom ju bëgg a seex hmm. li ma bëgg a doon nag mooy nekk Sëriñ Tuubaa rek ndeysaan muy waxtu neex joo xam ne boo ko dégg da nga xam ne kon ab taalibe bi li mu war a gën a bëgg mooy nekk ci biir Sëriñ Tuubaa rek te loolu xam ngeen ni ci Sëriñ Tuubaa la waajuram la ko royee Sëriñ Tuubaa musta bëgg a nekk lu yonte bi salaa salaam nekk ci biir yonte bi rek mahat mahabati yan moxtaaru sayidina xubbul magaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa lahu abdan xadiman lahu sanada nga xam ni kon maanaam dafay mel ni dafa dafa dafa doon Sëñ tubaa ci jikko jooju mooy fas yéenee nag doon koo xam ne du bëgg dara léppam rek tàbbi ci biir Sëñ Tuubaa dëgg la waaw moo tax te loolu gis nga dangay gis ni Sëriñ tubaa noon la ko defan cont bi loolu mu doon def jël alalam ak njabootam ay taalibeem ñëpp def ko dafa dem ba yàgg yëmatu ca mu wax ni adxaltu nafsi wa jami ahli. fii jay bi afdal wala afdal am na feneen fu gën a neex ci ci ma fàttali bi si. maanaam dafa dem ba yàgg mel ni bayit woowu doyatu ko mu ne alal lazi te ka nga xam ne kon dem na ba yàgg yonent bi saa salaam moo ko ne yow da nekk man may yow kon léegi kaay ma ma mawoon la ni may def ak yow hmm. mu ne alal lazi adgaltani fi jaybihi ilal jinaani maakifan bi say bi nga xam dafa mujj nag hmm. nee na yonent bi saa salaam moo ko mujj dugal maanaam mu mel ne moom poosam la hmm. joo xam ne jibaam la joo xam ne saa soxlaa rek dugal ci loxo dugal ci loxo alal lazi adgaltani fi jaybihi ilal jinaani maakifan bi say bi nga xam ne kon Euh, Cheikh Amadou Fadel dafa doon Serigne Touba. waaw waaye mu jël la garaata kun fa yakun jox ko mooy na am mu am loolu bés bu ne dama koy wax. Hmm. bu ñu bu ñu nee Sëñ Fallu day mel ni boo waxtaanewul Maodo Saad yi day des ci kii déglu waaye déedéet Cheikh Amadou Fadel taalibe gi képp war nañ koo mën a jël waxtaane ko ren ba déwén. waxoon na ko ngir ma ngoog. mu ne muñ suuf laa ci rey. waaye ak taalibe Cheikh Baye Cheikh Rafa laaj xoolal jaxasoo gi am diggante ak maam Cheikh Ibrahima danaan jël ci moom référence wax nga ko léegi xam ngeen ne suuf mu ñoom àgg na ci day wax doomu aadama yi nii leen saa yu xëyee day yuq doomu aadama yi juróom-ñaari kàddu moom suuf moom suuf. waaw ñu leen lu leen neex def leen ci sama kaw. Mm-hmm. laa ilaaha illallaah. moom suuf du wonku suuf du la ne xat naa maanaam amul dara dara dara la suuf mënta dégg. dëgg la waaye dafay wax ni maa ngi lay xaar bis. laa ilaaha illallaah bis bu nga dugalee sama biir. Hmm. bis bu nga jëkk fanaane sama biir dinaa la tànc ba mais mi nga jëkk nàmp ci sa waajuru jigéen dana génn. Oh. muñ googu suuf am nag nga xam ne suñ borom lépp lu mu ne yaatu na rek yaatu na. inna abdallaaha waasiatun fa yaaya faabuduuni waasiatun ne yàlla jooju moo lay wan ne suuf daa yaatu ba pare mën a muñ. <laughs> sëñ Fallu ni moom <laughs> ak muñ moom suuf laa ci roy. Hmm. waaye ak teel bi bàyyi Ibrahima Fall laa ci roy. stabun laa ilaa bi xeer nga bëgg wax kon. ma ngoog nga xam ne kon euh, dafay ni. Hmm. nit mënta am benn valeur te amul ak taalibe fi ne loo mën a am ci àdduna te boolewoo ko ak taalibe am am booba des na ndax boo amee ab yar hmm. fokk nga boole ko ak taalibe hmm. ndax ak taalibe damaa gis ne bokk na ci li tax mu roy lu ci maam Cheikh Ibrahima Fall hmm. maam Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Fall mooy ki nga xam ne bi mu ñëwee daa wane aw yoon waaye sëñ Fallu wane ko nag waaw wane ko yoon mooy li alxuraan addu woon ni laa tarfaw aswaatukum fawqa sawti nabi loolu la jël moom def ko moom jëmm mu def ko ñu ko cirib ci kanam sëñ Tuubaa wala ne nii lañ koy defee mm-hmm. bu kenn yëkkatee sa sa sa kàddu ci kanam mm-hmm. kon loolu sëñ Fallu bu nee acteur bi maam Serafal laa ci roy mm-hmm. kon moom am na ko bu baax kon euh, ak taalibe bi ci maam ma ci sëñ Fall la yemal ak taalibe bi ci sëñ Fall la yemal ndax daa jaay ak taalibeem jënde ko daa jaay ak njuréelam jënde ko ak taalibe ba pare ne ko njëg ga joxaat naa la ko muy addiya sëñ bi loolu loolu loolu loolu fi la mën a yem. fal hajj tajibul muridin jaxasoo na kenn du ma am Cerno moom. waaw man daa wax ni. waaw moo nu yar ban ër ban moo nu moo nu yar. ban mu jàngal nu bañ ñu aar kon kooka. jaxasoo woon nag moom jaxasoo boo xam ni feeñal na baax baax te loolu feeñ na ci rek bi nga xamante ni moom lay liggéey jumaa ji. Hmm. yaakaar naa ni ay taalibe yu baree baree baree baree bare yoo xam ni. Hmm. jóge woon nañ Daaru Muxti hmm. ñun ngir doon ay soldaar yoo xam ci jumaa ji lañ fas yéene nekk ànd ak Cheikh Mamadou Fadal ba keroog muy joxe ba keroog mu mu koy jullee te loolu kon jaxasoo gum jaxasoon ak suñ ko soo tabarkalla jaxasoo guñ jaxasoon suñu xol sedd na waaye rek xanaa ñu àbb euh, bayit suñu bo euh, aaya suñu borom bi wax ne subhaanahu wa taala mooy borom sañ-sañ te mooy borom am-am te moom mooy borom mën-mën may na ko ko tedd kii di Cheikh Mamadou Fadal machaw fihi bi isa azlam alayhim xaamu walaw sha allahu la zahaba bi sam'in wa absaarihim inna la ala kulli shay'in xadir uh-huh. suñ ko dafa am pël boo xamante dégg naa te ndindi dafa jàppante woon ak taalibe Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Fadal uh-huh. bi sëñ Fallou ñëwee pël bi ne ko xanaa xamoon ne man kenn ku ma joxoon ku nekk doo doo fekkee doo dëgg bàq uh-huh. sëñ Fallou ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko yow kan mu ne ko mën a diw sëñ Fallou daal di koy tàcc boobu mu daan tàcc tàcc ko tàcc boobu da ko waaji waaye wax nga dëgg ku la joxoon ku la joxoon du dëgg bàq waaye Modou Fadal mi ko ko joxoon ku ne doo doo doo fanaan doo fanaan guddi. Euh. doo fanaan. pël bi wax nañu ne keroog bi nga xamante ni jóge na fa suñ ko euh. la génn fekk ñaari nagam yu xeex. Euh. bu leen àttee. benn nag bi ñam ko ci biir bi. wéyeeg moom ba mu sedd yi jublu ma cee indi rek ne Cheikh Oumar Fadal dafa jubloo lorete amuti lor Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ma wax ne wallaahu yansuruni wal xalqu tatba'uni fil barri wal bahri zanafin bi la darar uh-huh. loolu fekk si na Cheikh Mourou Fadal ndax yëkkati na loo xam teg ci dëndam ne maay Sénégal uh-huh. jiba jiba kollu daal jiba muur uh-huh. dara sëpp fàll gaas tubaab jaarem waaye ñu ñëwaat tuuti ci diggam ak maam Cheikh Fall Babul Mouride mu mel ne rek bu ñu seetloo keroog bi nga xamante ne Cheikh Mourou Fadal gënee na àdduna Serigne Touba jox ndigal maam Cheikh Fall mu ànd ak Baye Cheikh Issa Diène xaritam mu fekk si ko Baye Cheikh teg ko xaar di ko xaar ci biti Cheikh maam Cheikh Fall Babul Mouride na sëpp dugg na ci biir ne dugg fekk suñu fàllu tëdd suñu fàllu nee maa ngi fàttaliku keroog rabal sër rabal bi ma sànge maa ngi fàttaliku aaya si bàyyi serae fall jàng taf taf li ma ko maa ngi fàttaliku ceñeer gi waxtu yi nga xamante ni naaj baa ngi tam mu may fekk si biir néeg bi neen dara ëpp ma ci neen ak fàttaliku kenn ëpp ma ko sëñ Fàll ma loolu mooy ndimbalu yàlla uh-huh. waaye suñ koso bul ma fàtte uh-huh. mbàkke bu ma fàtte jooju am na lu mu def nag keroog bi nga xamante noppi na ci jumaa ji nga wax uh-huh. masjidul Seexul Xadim ju mag ji uh-huh. nga xamante ne wax na ne aw nit aw jinne ak aw malaayka dikk nañ fii dama ko laaj uh-huh. yéen laa ko yéene Seex Ndofane daal la ko yeggale tudde ko Seex Seex maam Seex Ibra Fall Baabul Muriid wax naa la ko maa ngi ko doon dund léegi dama laa wax ne Seex hmm. Amadu ma ci lim wàcc ci Kazu Rajab hmm. doon doomi Seexul Xadim hmm. waaye Kazu Rajab julli wàcc si waaye mu wëlbatiku taxawalal sëriñ Touba. Mm-hmm. tax jumaa joo xam ne. Mm-hmm. sëriñ bi moo waxal boppam ni ba ko suñu borom joxee maalul ala ñëw nañ ni ko jox na ko ñu def ko yàquut ak marjaan. waaw mu ni leen damaa am sama waa ñu ma bëgg ñu barkeelu ci. maalul ala maalul mm-hmm. wax naa la léegi ne moo wax ne wax fir li man banoo binaa aha rafia wax fir li man amaruhum bi jamia moo waxaat nit banaal yal baaxi bi naa am baaqiyaat bi xëyri xët min li jinaani raaxiyam wajhal bihi daariya kal madina kal madina barakatan wa kahbatan ba masuna nga xam ne loola mm-hmm. naalub Sëriñ Tuubaa la boo xam ne Sëriñ Tuubaa da koo naal mm-hmm. ba pare joxaat Cheikh Modou Fadal ndigal mm-hmm. ni ko yaa doon sàkku ci man loo ma lëggéeyale jox naa la ndigal bis ni ki tey ku ñëw Tuubaa na la fa fekk kuy dem na la fa bàyyi mu xëy liggéey jumaa ji wax naa ne la léegi wax nga ko bi si moo ko waral daara du nekk mu sanc ko ci ci réew mi waaw fu nekk mu yóbbu fa ay taalibe waaye lu ñu ma a liggéey rek mm-hmm. da koy ñëwaat bi fi Seex Mor Musaa nekkee la ko tàmbali mm-hmm. da ko daan jël liggéey booba lépp doon taxawal ay ay ay ay mbàmbiloor mbàmbiloor mm-hmm. defe naa sëriñ Fallu moo ko jëkk a taxawal muy tool yoo xam ne lépp lu ci jóge da ko daan def ci jumaa ji waaye di taxawal ay daara yoo xam ne mboolem lu mu fa mu fa raccordé lu nekk da indiwaat defaat ci liggéey jumaa ji dëgg la waaye li ci gën a yéeme mooy bi nga xamante ne jumaa ji àgg na hmm. daa wax ni hmm. soroor bii ngeen di seen muy muy mu mu ne coll ne hmm. képp koo xam ne ma ma ma maanaam wax nga ma nu mu tudd naa la jox alfun maanaam naa la jox junni te booba junni daanaka ci jamono bii may waxe yow daanaka xaw naa tolloo téeméeri junni daal ne képp koo xam ne rek wax na ma nu mu tudd rek. Eh. dinaa la jox alfun. ndeysaan naan diw la koy tudde ñii naa boppam la koy tudde ñii naa nii la koy tudde mu daal di wax ni tudde naa ko Cheikh Ibrahima Fall. nga xam ne kon loolu li muy maanaam daa am leneen la muy feegalaat. Hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall mooy baabul muridiina. Hmm. Cheikh Modou Fall maanaam mooy baabul murid mooy làmp yoon wi. Hmm. mooy mooy la mooy yoonu yoonu. buntu képp koo xam ne yaakaar na sëñ Touba. lam mhm. naa jëm sëñ Touba. Mhm. waaye mu def ko muy symbole boo xam ne képp kuy ñëw Touba. li mhm. ngay jëkk seen mooy Lamp Fall. muy muy muy muy kéemaan loo xam ne. kéemaan da caa dugg. loolu loolu loolu mënees na koo waxtaane nag. ndax bi ku ne xam na ne loolu tubaab bi sax yaakaar naa bind nañ ko. bi architecte bi ñëwee da koo wax ne soof si at maanaam. maanaam euh, ca jamono si Moussa da ko wax ne suuf si jëmmi suuf si attanu li nga fi bëgg a liggéey loxo ñaareel bet ñaareel bet li ci gën a doy waar. suñ ko suñ Fallou jël loxo bi. waaw tubb ci suuf daal ne sama loxo bi moo ko téye. sama loxo bii moo ko téye nga xam ne kon loolu loolu dama laa xam ne la kon Cheikh Amadou Fadal dafay koo xam ne mat naa nag mat naa nag faram fàcce waxtaane dëgg dëgg dëgg Cheikh Amadou Fadal. ak Kazu Rajab ak sunu borom ni mu ko ëndee. waaw mu bokk ak julli benn anniversaire. Ah. waaye ak lim terale yàlla ci julli. moo tax xanaa sëñ Moussa Ka di wax naan ku ruur lislaami sëriñ Tuubaa ji. Uh-huh. mbaa nga bañ àllaaji mbaa jumaa ji. Uh-huh. ndéem góor la ndéem jigéen la maa lay xiiru matt la ba fóotatoor. kon moom ndax xam nga tamit maa lay xiiru matt la ba fóotatoor. waaw mooy xam na ni yiw bu baree baree bare suñ borom da koo nam def te da koo jaarale Cheikh Amadou Fadal. te booba xam na ni. Hmm. Cheikh Amadou Fadal ku suñu borom waajal la koo xam ni. Euh, ndax li li gën a doy waar mooy xoolal dama koy faral di di wax. waaw euh, Baye Ndiaye Diouf dafa maa nettali ci moom lu lu doy waar. lu yéeme te moom bokkoon na ci mag ñi dund Sëñ Fallu mhm. ndax euh, ànd ak nit. Mhm. jël sa doom jox ko. Mhm. Euh, jël oto may ko. jël sa caabi coffre-fort dénk ko. loolu ak tab fi nit mënta tabe ba weesu loolu maanaam nga xam ne kon day mel ni mboolem jikko yi nga xamante ne dees na ko nawe nit muy makaarimul axlaax yépp Cheikh Mame Fadal da ko boole loolaa taxan mu jaxasoog mag ñu wëral sëñ Tuubaa ñëpp. maam Anta. sëñ ma nu xabaan noonu la jaxasoo nag moom. maam Ibrahima Faty noonu la jaxasoo ndax li koy li koy firndeel mooy ku ci ne tey boo demee këram fekk fa aw turandoom tey boo demee kuram fekk fa autonome kenn dadul nag maanaam day mel ne moom moo suñ baara booy xool ni mu jaxasoo moom ni mu jaxasoo da nga naa sax jaxasoo wu kenn ndax ñoom dañoo bokk dañoo bokk dañoo bokk ci wàllu waajur wu jigéen mm-hmm. ba noppi wëlbatikuwaat maanaam bokkaat ci waajur wu góor mm-hmm. ba pare doonal ñoo xam ne seen diggante dafa rataxal ba wax nañ ni mooy ki nga xamante ni moo ko jëkk tudde doom Cheikh Lamine Cheikh Amadou Lamine jàmbaar ñi nga xamante ni kenn waxtaan a waxtaane Kazu Rajab kenn mënut a waxtaane Cheikh Amadou Fadal te sa xel demul ci moom mooy doomi mooy maanaam mooy doomi Serigne nga xamante ne wala mooy sëtub Serigne bi nga xamante ne fanweeri weeram yooyu moo fanweeri at ñoo tolloo. laa ilaaha illallaah lay Bara. dafa am dafa am dafa am mag mu xereñe moo xam ni damaa naw pastéefam ak pas-pasam damaa wax ni Cheikh Amadou Fadal Serigne Bara maanaam bu dikkal doon xalifab Serigne Touba kese. def fi liggéey bu mu fi def xëy rek dem day mel ni day mel ni matale na moo dem ko Sëñ Tuubaa ko sëñ ko sa dogumal yàlla bu la yàlla dog ndax dafa woon ne mag ñi ba ñuy way way wa alaaji bara taxoon ma wax wax ne uh-huh. raayal ngëneel waa nga Tuubaa sët ba yor na ko tey uh-huh. alaaji fàllu mooy xalifa billaay ndax uh-huh. suñ fàllu sët doom la waaye bu ñu nee raayal ngëneel waa nga Tuubaa sët ba yor na ko tey alaaji fàllu kon mooy kan alaaji baar alaaji baar mooy xalifa billaay loolu gisin bu rëy la wallaay wallaay dëgg la maanaam maanaam bokk na ci ñi nga xamante ne histoire du leen fàtte ndax daa doonoon ko bëgg sëñ fal lool doon ko bëgg sëñ Tuubaa liggéeyal ko liggéey bu rëy rëy rëy waaye yàlla dogalit Kazu Rajab it ca waajtaayu mu daal di dem diyaali ji boromam kon kooku moom it amal na waajtaay bu rëy bu nekkan ci moom kon yàlla suñu borom yokk ay leer ci moom te taas na ci barkeem te sëriñ Abu Baraka mm-hmm. xalifab seriñ Fallu bi fi nekk sunu borom yàggal ko fi lool lool lool ci barkeb Serigne Touba. amiin loolu ñu ngi koy ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim. amiin li ñaan mbooleem njabootu Serigne Fallou bi ndax day wax ni Cheikh Modou Fadal. Hmm. Euh, bokk na ci li nga xamante ne sunu borom defal nag ko. Hmm. mooy mbooleem ak njabootam ku ci nekk. Hmm. mën naa atti diine ci bi yar. ci ak bi. ci ku ci koo ci gis. mu am mu am mu am xelum. mën a yor réew ba pare jënd ko ak taalibe hmm. loolu loolu bokk na ci liggéey yi nga xamante ne hmm. Cheikh Amadou Fadal da ko fee liggéey bàyyi ko fi ah. yàlla na ko suñu borom fayal suñu soir amiin yàlla nañ ko suñu borom fayal barkeb Cheikhul Xadim xaadim rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam waaye suñ ko so Cheikh Amadou Fadal Mbacké day koo xamante ne ni loolu def na ko uh-huh. bàyyi Cerno Fall jumaa ma nettali ci làmmiñam uh-huh. maa ko fekk biir kër sëñ Saaliw uh-huh. ma laaj ko ne ko damaa dégg kat bàyyi Cerno dangaa demoon waaye sëñ Fall loolu indi ndax ci sorol bi daan na bi ñuy liggéey bi ñuy liggéey sorol uh-huh. man maa ko maa ko laaj bàyyi bàyyi cana fal juma uh-huh. mu ne ma wax nga dëgg de ci mag ñi jóge woon daarum si la bokk ma Moustapha di wax nga dëgg uh-huh. ma ne ko loolu nu mu demee mu jàpp sama loxo dugal ma ci néeg génn naat ci beneen néeg dugal ma ci beneen néeg néegu saral la ñaari néegu saral la waaye wax na ma keroog ne ma li nga xamante ne tàggee nañu ma sëñ Fallou te leer na ko ne demoon na bi sëñ Fallou yabalee sëñ Bay Ndaw yëkkati mbubbam moom ak suñu dox xabaat yëkkati mbubbam jox leen nee bu ngeen àggee Cerno Fall moom ngeen ma daa liggéey bu ngeen àggee gillal jël sa loxo yow Cerno uh, kii uh, Mbay Ndaw tegal ci maaru ci maaru ji bi wàcce ci dënd bi ne kaw Sëñ Fall nee na bi mu jëlee loxoom bi teg ko ci maa sama maaru jë wàccee ko ba ci sama dënn nee da ngaa mel ne gone gu feebaroon ba jël ndox mu sedd ndox ndox yooyu ñu jël di ci bopp bi ngir bëgg bopp bi sedd nee damaa jékki aw feex laa yëg jékki-jékki daal di tisli na ñoo ket mhm. ñu xob yére yi jox ma mu ñu fekk si ko mu toog ci mooy li ma la wax léegi rek loolu nit mënu ko tëju boobul ak boroomam Cheikh Amadou Fadal doyloowul woon rek jur gi ko sëñ Tuubaa jur dafa ah, jàngal booleeg li mu jàng lépp jënde ko ak teele bi daa wax ne waaw ah. sëñ Goso mhm. mbay ndaw mu ne ko mbakki mu ne ko borom barak bii de day yenu ndabam ne cëpp sama borom ma yenn saa def na cëpp ci sama borom. Uh-huh. nee bu ñu àggee ko nekk dëj bi ñu dëjee sama borom jël jël jël ndab ndabal ko tedd kii def ci ba mu fees yéen ko na ko demal. ngoon uh-huh. ma gannaaw may itam ma ñëw indi saa ndaj saa nee na mu yen ma mu mu def ci fees yen ma ne ma demal. Uh-huh. nee na bi ñu yegsee ku baax ki jël ndabam teg séddale ñëpp jot seen wàll. ci ca ndabam loolu ma am saa wàll may dem. nee loo tax ma am li ma am moo tax ma sañ koo wax. la mu wax dafa dee nag. mënuma ku ma tuddee doom ma dogal mboot waaye mën naa ku ma tuddee doom mu wale ko moom ndeyam ak baayam yóbbu aljana sëñ bi xool ni mu reyee waaw mooy li ma la wax léegi sëñ bi da leen a teel a wa sëñ bi da leen a teel a waajal maanaam euh, sëriñ tubaa dafa am gis-gis bu rëy mm-hmm. maanaam euh, xamal na ne mm-hmm. ëllëg xetli googu mu wax ne maay xetlikaay jamono mm-hmm. te wóor na ko ni bu ëllëgee bu demee njabootam nga ñoo fi des moo tax da leen a maraleeg seen borom subhaanahu wa taala waaye xoolal euh, lu mel ni dénkaan bi nga xamante ni waxan na ko si Amadou Moussa ak Cheikh Amadou Fadal nga xam ne Sëriñ Tuubaa yàgg na leen a boole waaw loolu dana baax ñu di ko faral di waxtaane mm-hmm. Sëriñ Tuubaa da leen yàgg boole mas na leen a boole sax benn bis da leen a wax ni euh, dem leen seetale ma fere yi daal leen wax ne nag waaye na ngeen njëkk a jaar ci sëñ Siréloo sànnu si. waaw sànn. waaw bu ngeen fa jógee maanaam lu mu leen wax na ngeen ñëw ci man door a jàll ci ñeneen. Mm-hmm. waaye suñ soit da gis ni euh, foofu lu yéeme dafaa xew. Mm-hmm. mooy da gis ni kon sëñ Tuubaa mm-hmm. ak defaram kenn xamalum. sëriñ Siré te ci taalibe sëñ Tuubaa yu mag yi la bokk. ginnaaw bu ñu jógee ci liggéey géej gi sëñ Tuubaa fa la jaar waaw sànnu si ca juróomi fani koor ya ga waaw noonu ñu ko xame waaw waaye maanaam euh, sëriñ si doon taalibeeb sëñ Tuubaa boo xam ne mm-hmm. am na maqaama yu rëy ci sëñ Tuubaa waaw yàgg naa ci sëñ mm-hmm. waaye defar gi ko sëñ Tuubaa defaral mm-hmm. tax na yàgg naa def ay kiimaan sëñ Tuubaa amal ab ak taalibe loolu xamal nag lan mooy ak taalibe xam nga ku toll ni doomi sëñ tubaa hmm. sëñ tubaa yabal la fi yow ne la demal fi demal demal ci diw sàngam hmm. ba mu ñëwee sëñ sira hmm. wax nañ sëñ sira da leen leen ba mu leen dalalee dañ ko ne ñun day suñ moo la yabal ci yow daal ni nañ ñëw nga wax nu lan mooy ak taalibe bi nga dénk nu ak taalibe bi sira da leen wax ni moom da daa baax rek waaye lépp fa moom la ne. wallaay. gis nga ko. waaye da wax ne maa ngi leen di dénk lu yàgg yàgg na ngeen doon ay sëriñ yam ci ñun ñu maas ñëpp di ay taalibe nee na bu loolu bu ngeen ko defee doon ay sëriñ yam ci ñun ñu maas doon ay taalibe. Mm-hmm. lépp baax tey ak ëllëg. kon ndekete ab sëriñ daa war a yam ci doon ab sëriñ. Mm-hmm. su ko defee taalibe yam ci doon ak taalibe. Mm-hmm. sëñ sëriñ ne ko bu ngeen ci yamee. lépp baax tey ak ëllëg. daanaka waaye. Hmm. bu àdduna dox mukk hmm. da ngeen def seen bopp ay boobu. Hmm. bu defee bu ngeen defee seen bopp ay boobu. ñépp def seen bopp ay dag waaw lépp yàqu tey yàqu ëllëg. dëgg kon nga gis ni kon. <laughs> lii am jamono tey Sëriñ Fallu lijjanti woon na ko bu yàgg yàgg. te Sëriñ Tuubaa loola taxal mu yabal leen fa. kon da gis ni maanaam da nga gisee ci biir waxtaan ma li ma ci jànge mooy mhm. sëñ Fallou Cheikh Moustapha ñaar ñu yàgg nañ sëñ Touba yàgg na leen a boole mhm. yàgg na ñoo xam ni maanaam kii nii am na loo xam ni kii daf koy jàppale ci ab mission bi te it mooy tax bu fa jógee nam doon moom la mu la mu namm ci Cheikh Modou Fadal mooy taxawal jumaa ji ba ñëpp seen ko loolu dana mën a nekk te waajal koo xam ne Sëriñ lu waajal nañ ko ko moo taxal mu mën a jaxasoo àdduna bépp ndax ni mu jaxasoo woon ak mag ñi defar leen ba kenn ku nekk wees yàqu ni la jaxasoo woon ak nit yi àdduna yi waaye doonoon ku am xikma la ku am mm-hmm. xikma waxi Cheikh Mamadou Fadal jooma sa dégg xikma la wax nañ ni bokkoon na ci bokkoon na ci bokkoon na ci ay ay ay waxam wax yu am solo yoo xam daan na ko wax. Mm-hmm. yeneen saa yi ma say julli ci jumaa ji ba génn dong yi dañ koy topp naan ko maam yàlla na nga fi yàgg comme yaa maam yàlla na nga rogalaat ba ñëw seen Sidi Muxtaar tey ci Cheikh Amadou Fadal la jëkke waaye dégg naa da leen daan xëpp ay tàngal leen jox xaalis de leen wax di di di leen wax ndàkk de ndekete dàkk jooja mooy 24 ans yi ñu fi nar a toog <laughs> nga xam ne kon ku xereña la woon ku déggal suñu borom subhaanahu wa taala la waaye ku aman gis-gis la ne leen ko jàkki Senghor jaat ndeke Senghor jàkk jooju moom la fa war a toog mooy vingt trois cent yooyu mu fi toog nga xam ne kon moom suñu borom da koo mayan wa maa yantiqu anil hawa dawul waxe dara dara ci bànneex hmm. lu mu mas a wax lu nekk da koo teg ci xam-xam hmm. kon nag mbokk yi saa su ne damay faral di fàttali ni hmm. bu nu tiiree ci leçon ku mel ni Cheikhoul Fadal ci teer bi war nañoo raamaan ñun ni ñu raamaane mooy jël Cheikh Mamadou Fadal teg ko muy son royukaay ci ak teer bi jël tabe ga teg ko sunu su sunu kanam Cheikh Amadou Fadal mës ta denc dara doy na sëkk rek ñu ne la bi mu tabaxee jumaa ji ba mu àgg hmm. Cheikh Amadou Fadal këram ab baraak moo fa nekk hmm. ab baraak moo fa nekk loolu loolu doy na doy na sëkk sëkk ci ni kii dafa bàyyi woon xel borom subhanahu wa taala waaye bàyyi woon xel li nga xam ne moom la ko yàlla santam te mu wóor ko ni loolu def ko mooy li nga xamante ne moo ko bàyyi jamono suñu mooy li nga xamante ne moo ko bàyyi jamono kon mbokk yi maa ngi leen di fàttali rek ne a ngi koy topp ci seen la télévision islamique au service de waa kër Xaadimu Rasul may ànd ak sama xarit euh, sëriñ Kosso Sey la ñuy waxtaanee Cheikh Modou Fadal Mbacké ci Kazu Rajab euh, sëriñ Kosso yaa ngi wax léegi diggante digganteem ak Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim mës naa fekk Cheikh Moustapha moom Cheikh Modou Fadal ne ko in kunta za fiddadin aydan lebal ma juróomi dërëm danaa la fay te danaa la gërëm. Oh. seen diggante ñoom ñaar Cheikh Modou Moustapha ne ko. lakin na yaa ibnu cheikhi laysa li yaa ilaa ñaari dërëm fa xismuhoo ay aydan ku nekk dërëm <laughs> dégg nga mu ne ko mu ngi koy xamal ne ko yoruma juróomi dërëm yi nga wax waaye am naa ñaari dërëm léegi nañ ko séddoo séddoo boobu ñu koy séddoo suñ ko sax dama bëgg tuuti ñu demaat tuuti ci ginnaaw uh-huh. ndax Cheikh Modou Fadal ak Cheikh Mouhamadou Moustapha dañ ko nangu ñoom ci seen biir ngir seen ñaari wéjur yi àndoon ci kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul fekke ba dégg nga ko a bu rëy ba la Sëriñ Tuubaa woon la mu jaayante woon ma àggoon na ci mag ñi keroog ba ma ko waxee sëñ Modou Mamoun àggoon na ci mag ñi eh, ni nga xamante noonu la ko soxna aw bu sa nangooy ak teraanga ju rëy di ko soxna soxna aw soxna Aminta Lo defal mu doon wax ne li feek doomi si ah, soxna Aminta Aminta Lo ngi fi Modou Fall du gis du gis li ma ko li ma ko defal dara Cheikh Sadio Mbaye Sëriñ Tuubaa yebal na leen fa di jàngi xam-xamu lasaraar moog Cheikh Modou Faral Cheikh Modou Moussa ba nu àggee Cheikh Sadio ne leen lii ma leen di jàngal de waroon naa leen ko jàngal ci juróom-benn weer waaye naa leen ko taxañal ci ñetti weer ndax yéen doomi Sëñ Tuubaa ngeen amul nañ jot. Uh-huh. bi mu leen ko jàngale ba mën na da ngeen may fay. Cheikh Modou Moussa dem fay Cheikh Modou Faral fayagul. Uh-huh. Cheikh Sadio te ba mu yàgg daal di ne nañ daal di takk gawar ga daal di ne nañ dem ci suñu wàll. Uh-huh. ndax maa waaye bi ñu ñëwee nit ñi ngi fekk sëñ Fallou mu wëdd fas yi. Uh-huh. mooy mooy fatu boobu nga gis gars yi di ko kii. Uh-huh. mu ngi wëdd fas yi. Uh-huh. di bale di jorote bi di di di ñot di neefare daal di ne mbokk yi taxaw leen taal bi yëpp taxaw. ne ko ana Cheikh Sadio Mbaye waaw ne ko ndax déggu leen ratab sëñ Fallou bi muy wax xam nga Cheikh Sadio nag kenn loon ci mët bi. sëñ Touba julli na ndar julli goo xamante ni Cheikh Sadio daa jékki-jékki yuuxu. sëñ Tuubaa bi bi mu noppee ci julli gi daan ñu ne ko Sadio mu ne ko ana looy yëngu mu ne ko damaa gis bi nga taxawalee ba kàbbar Jibril alayhi salaatu wasalaam moo yor càngaay yu weex tal ne la Rasulullah alayhi salaatu wasalaam moo la ko jox loolu ma yëngal. Oh. waaye Cheikh Sadio dafa wax mag ne leen ndax yéen a ngi dégg ratab sëñ Fallou bay la mi wax. Oh. ma ngi nag ñun de xamuñu li ñuy wax mu ne rata baa nga naan Sadio bul yàkkamti Sadio bul yàkkamti Sadio bul yàkkamti nees tuut lépp teg sama loxo ma fay la. Allah <laughs> sëñ bi xoolal. waaw loolu euh, suñu saa li ma ciy dégg rek. <laughs> Oh. mooy la waykat ba waxal. wax quluubul aarifiina lahaa uyuunun hmm. tara maa laa yuraa li naasiriina. ndeysaan <laughs> lay wax nag. dafa wax ne xolob ñi xam yàlla. waaw. dëgg dëgg dëgg dëgg dañu am ay bëti xol. waaw ñi xam yàlla dëgg. dañu am bëti xol yoo xam ne. Hmm. nee na ñi gis ñi ci kaw rek mënuñu koo gis. dëgg la waaye yéen ñu ci de. Hmm. wa ajnihatan tatiiru bi xayri riisi. Hmm. ilal malakuuti rabbil aalamiin. nee na yàlla suñ borom subhaanahu wa taala da leen may ñu am donq yoo xam ne. Hmm. laaf yoo xam ne. maanaam dañuy naaw te doo am ay loxo waaye nee na dañuy dem ba ma ba malakuuti rabbil aalamiin loola mooy kon ñoom dañoo amal gis-gis bu rëy ci ni. dëgg la borom dana leen boole ci ak ànd. Mhm. ndax seen ñaari wajur yi dégg nga ni nga ko waxee léegi. Mhm. waaye gis nga dërëm boobu. Mhm. nga xam ne kon xamal nañ ne ñoom ala kulli xaalin am na fu leen suñu borom di boole. subhaanahu wa na te loolu. Euh, ni ñu koy déggee mooy. Euh, toujours dama koy faral di wax. day mel ni boo xoolee Sewon Fadal ci ci version bi nga xamante ni mooy mooy mooy saat yi mu daan def. loolu lu lu néew la woon ci moom. Hmm. maanaam bokkal na ci li gën a néew ndax damaa wax ni jamono bi muy taxawal liggéeyub sëriñ Touba bi. Hmm. rassembler boole mag ñi. Hmm. maanaam fenn fu nekk la fa war a dem mu def mu def ko fa. ñaareel dem mooy ak liggéey bu réy bi nga xamante ni defal na ko Serigne Touba muy indi ko màggal gi mu indil ko ko Touba. ak yeneen liggéey yu rëy yooyu. loolu fitu kese mënu ko. déedéet njàmbaar kese mënu ko. déedéet fokk da koy boole fit ak njàmbaar waaye ak xam-xam waaye loolu lépp nag li tax mu man ko mooy la ko fondement dafa dëgër. Hmm. ndax foofu dafa maa ñor. Hmm. mooy nekk gi mu nekkan ci biir Sëñ Tuubaa. waaw waaye Sëñ nee naa la dafa nekk ci dafa nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg. yonent bi ne ko man bu fekkee da nga doon wut ci man dara la nga doon wut jeex na. Hmm. kaay ma tegtal la ci ki ma wute. loolu andi ay dalal yàllaaw alalaay ju bari jooju ngay gis moo andi wasextu rabbil arsil judi wal afi maal mustafa laaw mm. li nga xam ne loola nag loola nag dafa dem ba mm. dafa dem ba daa mujj wax ni yonent bi saa salaam moo ma ne léegi kaay ma def la sama jiba xam nga ne nit ak poosam sorewuñu mm-hmm. mooy alal ladi adxaltani fi jaybihi ila jinaani maa san sa bi waaye dëgg-dëgg nag boo demee ba nga xamante ne subhaanahu wa taala Sëriñ Tuubaa mi ngi koy wax ci génn xasida daa wax ni man mm. bu ma jaaxal kenn man balaa maa daraa soob di coobare yàlla te lu soob yàlla soob na ma surtout lesi saa al ilaahu hmm. wal ilaah day mel ni li euh, koy faral hmm. nga dafa am waxi yoo xam ne neex a waaye da nga am ak dégg mu ngi mel ni xasida gi ñuy wax sukkur hmm. day day wax ne sëñ Tuubaa nee na sëñ Abdu yàlla na fi yàgg loolu te fan yi rek génn na ak xasida go génn waat na xasida gi ngir tasaare ci mbokk taalibe yi yooyu dafay feeñal day feeñal ay ay ay ay ay ay wax day day feeñal dëgg dëgg maqaam mi suñ Tuubaa am ak doomam yi maqaam yi ñu am mm-hmm. xam nga ne sukkur rafan ku ko mokkal ñu dama sa xalim ak bàkkaar mooy ku mokkal xasida gi xasida gi moo lay këccëri ci sa xol mm-hmm. ba du doo def luy def bàkkaar kon sa xalim ak bàkkaar na <laughs> àgg na ci di wax ko jàng ba génne ko jox la ko mu génne maanaam sëriñ Fallou. Mm. suñu borom da koo yàgg a waajal. Mm-hmm. mboolem ute yi mu war a liggéeyal suñu borom subhaanahu wa taala suñu borom da koo jox ba mu nekk ci loxoom ni ko liggéeyal moo tax dara du ko jaaxal liggéey bi da ko ndax xam nga koy fond ma. ñu mm. nga ëttalu ko. Mm. nga ne sama loxo bu tuut bii moo koy taw ba mu ne colaat ca kaw. maanaam sëñ bi loolu ndax loolu xaj na ci noppi ci dégg kese déggu kese ah. waaye kon xamal na ne wóor na ko ne liggéey bi fi mu bëgg àgg dana fa àgg. dëgg la. mu def ko ba xëy jullee ko. laa ilaaha illallaah. def ko ak à 1900 defe naa. kañ la ko la la la jullee jumaa ji. 37. 63 63 63. nga xam ni kon. mu jullee bu doy waar boo xam ne bu mat a indiwaat fàttaliwaat nit ñi lay doon xam naa insha allahu taala yeneen waxtaan yi mhm. gars yi dinañ ci gën a dinañ ci gën a dugg gën ci xuus mhm. ndax Cheikh Amadou Fadal booy xool aspect yi nekk ci yoonu murit bu ci nekk Cheikh Amadou Fadal def na ci loo xam ne mhm. boo koy waxtaanee xam nga saa su ne damay faral di ko faral di leeral wala ma koy jéem a layal mooy sëñ Touba moo mel noo xam ne boo dee waxtaane jenn jenn doomam yaa ngi waxtaane ñëpp dëgg la jenn doomam joo waxtaane rek waxtaane nga ñëpp fi ne mbubb mi ñu mosoon si Amadou Fadal boo ko doon summeet sële ko sa ñëpp laaj maanaam xarfan bi xarfin lay doon boo ko summee solo ko Cheikh Abdoul Khadir xarfan bi xarfin lay doon boo ko solalee Cheikh Mortada xarfan bi xarfin boo ko s solalee sëñ daam xatta noonu boo ko solalee sëñ daam borom dër bi noonu boo ko solalee sëriñ Saliou noonu mooy moom naka jekk dafa waajal ak njabootam ci xam ni ñooy doon mu jëdditi seen jamono. laa ilaaha illallaah. waaw jërëjëf si euh, le 7 juin 1963 tabarkalla xam naa ne waxtaani Cheikh Modou Fadel Mbacke xajul ci benn waxtu suñ ko sox uh-huh. jàmbaar gi nga xamante ne nii aw turam donc juróom-ñaari yoon mu faj aajo. Uh-huh. yaa ngi koy dégg du du jeex du xaaj. Uh-huh. jàmbaar yi nga xamante ni kër Sëriñ Tuubaa kenn ku nekk am nga foo foo ngay fu la Sëriñ Tuubaa boole waaye ku dugal ci toq woogu nga xool ba xam uh-huh. fépp lay intervenir moom universel la Cheikh Amadou Fadal uh-huh. Cheikh Amadou Fadal euh, dafa am ku ñëw ci moom suñ ko so uh-huh. ne ko wala al axiratu xayrun laka min al ula wala bu njëkk bee ma ñor suñ Fall ne lu sayte mu ne ko wala al axiratu xayrun laka min al laa bëgg a liggéey suñ Fall ne ko waa ji sa sa seng yi màggit yi beesee ko sa yi mais sa seng yi yi beesee ko mooy moom la firi bi. moom la ko firi bi ci gàttal rek tënkal ko ko. Mhm. ndax waa daa bëggoon xam li xam nga suñu tubaab am fu mu koy wax. la bëgg suñu fàllu tontu ko fa waaye suñu da ko tontu ci te beneen tontu bu bokkul bi mu jàppoon ne moom lay amee. Mhm. xekk ba. waaw xekk ba man yuutil xekk ba. faqat utiya xayran kasira. macha allah ne ko sa sa yi màggit mhm. yi. na la gënal yu bees yi na la ko gënal. Uh-huh. boo jëlee yu mag yi di ko gënal di ko yu bees yi boo ko génnee ñëpp ñëpp ñëpp sikkal ne kii xam yaram daa neexut. Uh-huh. nañu Cheikh Omar Fall la ko tontu waaye day ko ne man amila saaliha fali nafsihi wa man asafa alayhi. donc uh-huh. mooy ña laaj ñaareel bi. sëñ Fall na ko noo ko déggee mu ne ko man day bàkkee maa ngi ko déggee ne ni ko mag ñëpp di waxee ak alxuraan nu mu ko firee mooy lu waay def boppam. sëñ Fall na ko waa ji sore naa foofu waaye am am fu mu wutee ma yow. Uh-huh. mu ne ak ah, man de Mbàkke bëggoon dégg dégg dégg bi sëñ Fall na ko boo tibbee tibb tibb bu daa tibb bu rëy uh-huh. seex uh-huh. bu neexee ne ko yëg mu ne ko xanaa Mbàkke man mi ko seex mu ne ko waaw mu ne ko walla mu ne ko nag eh, fa man asaa fa ale mu ne ko boo daggee wet bala nga ko teg fenn foo ko njëkk a teg nga ko xanaa sa bopp ataamaroo naa si biir biir oh. xool sëñ Fall li mu fi loolu sëñ bi xikam dafa dégg na alxuraan suñu borom mayen ko ci alxuraan suñu borom mayen ko ci alxuraan lool firnde mooy bind na si juróom-ñett waaye dama bëgg donte si yeneen yeneen yi yi ñëw la war a ñëw waaye la ma ci andi loolu uh-huh. dama bëggoon si sëñ Kosta nga dimbali ma yoonu murid yëpp ci kaamil kaamil sëñ Tuubaa boobu xa moom mooy mooy li ma la mooy li ma la waxoon rek. dèjà ah Cheikh Amadou Fadal. de waaw na sëkk rek ci alxuraanam ñu bind ñaar fukki rek ñaar fukki rek juróom waaw ndax comme yàlla daa dogal eh, mel na ni mbokk yi ñun war nañoo waxtaane Cheikh Amadou Fadal ak alxuraan. Mm-hmm. ci dama ci bañ bañ a bañ xuus trop. ba ba ba ba ba xaw leen a kii. waaye ñu xam ne daal maanaam mbokk yi nga xamante ne ñoo safoo seen télévision ma fàttali Bichri. lii lañ ko fas yéene defee. muy ay suutam yoo xam ni lépp day duggaat ak ay thèmes yoo xam ne day duggaat ci biir kas rajab bi waaye ni ma koy waxee te mu ñor ma mooy bu ñu jàngalee Cheikh Amadou Fadal ci ak taalibeem ñu roy ko ñu jéem koo roy ci ak taalibe bu ñu ko jàngalee ci diggante ak mag ñi ñu xam ne sunu borom subhanahu wa taala dafa soxla muhamalaat xasana mooy diggante yu yéwén mm-hmm. diggante yu rafet te fi jamono toll tey maanaam kenn rek ci doomi Sëriñ Tuubaa yi war nañoo jël ci ay jikkoom man cee dund su adduna jak suñ àllaaxira jak kon mbokk yi loolu bokk na ci li nga xamante ni insha allahu taala Kazu Rajab bi ñu ngi koy jub le 24 lay doon ci weer yu ñu nekk muy muy muy avril bi mhm. insha allahu taala kon noonu la ko bis fas yéene ànd ak yéen ci ay plateau yoo xam ne jàngale Cheikh Mamadou Fadal waaye ci ay jikkoom ci ay melokaanam sëñ Falloog mag ñi sëñ Falloog alxuraan lépp rek maanaam sëñ Falloog ak ak mboolem jikko yi nga xamante ni sama fadal làmboo woon na ko loolu day doon am solo nga xam ni euh, léegi rek sëñ gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy jumb mooy Serigne Cheikh mi nga xam ne moo ne ci rési bi Serigne Ndiaga ci caméra bi ñu ñu koy junj maanaam bés bu nekk plateau yi day daw. waaw incha allahu taala ba keroog ñu àgg ci kasu rajab ba di leen indil ay émission yu am solo waaye di leen indil léeg-léeg mën nañoo ni sax ay rubrique yu am solo yoo xam Cheikh Mamadou Fadal. Mm-hmm. indil leen yoo xam ne. bis ne ni mu daan àndee ak yéen ci Kazu Rajab yi jàll yooyu yëpp nga xam ne ndax it ñu fàttalikoon ne ma fàttali bis da ci am lu rëy. waaw mooy njëlbéenu tere xaw ma nu ma ko mën a tuddee ba ba ñu xam ko. waaye mooy tere bi jëkk bi nga xam ne tudde nañ ko xasida ak Serigne Touba waaye tudde ko ko doon Serigne Fallou tudde ko ko mooy sëñ Mamadou Mamadou Mamadou Mbacke yàlla fi yàgg loolu te waaye ñu tudde ko ko ci weer wu tedd wi nga xamante ne mooy rajab kon moom mel na ne bépp organe de presse buy wane dara ca Kazu Rajab na jàpp ne mën naa am suñu doole bañ faa àgg waaye na nga jàpp ne noonu ngay dimbali. ndeysaan ak loo mën a waree bépp organe de presse moo xam da ngay bind moo xam da ngay wax waaye képp ku ci def moom na nga yëg ni Mafaatihul Bichri TV ngay dimbali seenu liggéey. ndax ñoom ñoo jàpp ne fépp fu waay war a nekk sax waras naa waneen ne na ngay ñëw Kazu Rajab ngir li nga xamante ni Serigne Touba teerale na ko. ci biir Kazu Rajab ni nga xam ne noonu la Sëñ Tuubaa waxe woon ne Kazu Rajabin akramani ñu ne Sëriñ Tuubaa li mu terale mooy may ñu tele boo xam ne Mafaatihul Bichri la tudd may na ko ci weeru rajab waaye may na ko ci doomu Cheikh Amadou Fadal tudd ko. ñàkk bàkkaar. Sëriñ Modou Mamoun Mbakke ah, sëñ yàlla fay la. Euh. ci ni ko indee. Euh. yàlla yàlla gërëm la. Euh. ci ni nga ko leeralee. gis nga Mafaatihul Bichri TV. teelab sëñ Tuubaa la. waaye teelab jullit yëpp la. la télévision islamique xam nga sëñ bi loolu sëñ Koso. daa yomb gis ci réew mii fii lañ toog seen Fadal Cheikh Abdou Lahad jabaru Sëñ Tuubaa gi Cheikh Abdou wax seen wax ju rëy jooju ne bu ñu mënee a ca rajo ba ne ca Gabon mbaa ba ne ca Mali ñu mën ko muñ taalib bi Sëñ Bamba ay murid Sëñ Bamba takk seen laxasaay ñëw di liggéey Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul indi seen télé laxasaayu tuddee ko ma fàtte xon bi si sëñ bi yombul loolu murid dañ ko war a xam nañ ko xam te jàpp ci jàppale ci Sëriñ Tuubaa kenn ku nekk sa woote ci Sëriñ Tuubaa tamit dëgg ci yow jugal tekk sa loxo caay te dem jàppale ma fàtte wax lu bi ci loolu doon moo doon woote bi waaye suñ ko so maa a tax ma waxee nii Sëriñ da ngaa daan ñëw ba ci moom daal di wax sa uh-huh. mu uh-huh. daa def waaje kee waaye ñu ne ko mbàkke kee daa mënta wax mu daal na dëkk ñu xajal ko mu raam ba yegsi ñu yegsi ba Sëriñ suñu fal day ko ne ana lu tax mën a wax ñu ne ko daa mu moom suñu fal waa ji gémmiñ wax la jëriñ waxal du suñu fal ne waxal mu daal di yi lee ñu wax la am saa su ne di leen wax ne xew fii ba Touba waajtaay màggalu 15 heures yëpp ku koy def ko sa wax na ko ñun ñu nga ciy dimbali sant bu baax di ñaan sunu borom subhanahu wa mu doon defal tawfeex niñ ko baaxoo di waxee rek ma fàttul Bichri TV doon télé boo xam ni saa yoo sa jëlee sa commande ubbi rek la ngay dajal mooy Bichri mooy mbég waaye boo continuer di seetaan nga dund ajjana waaye ak kóolute yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala defal kon mbokk yi yéen ñëpp ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen émission insha allahu taala ci eh, yeneen eh, thème yoo xam ni nañ fas yéene duggaat xuusaat insha allahu taala ci Cheikh Modou ñu ngi sant bu baax nag di gërëm dafa naa bokk yi ñu dama koy bàyyi ak bokk yi nga xamante ne ñoo ne seetaan ci biir réew mi ak bitim réew moo xam ñu yor seeni téléphone di ko seetaan wala ñi nga xam ne toog nan jàkkaarloog seen écran télé di ko seetaan leen sant bu baax di ñaan sunu borom subhanahu wa taala li nga xam ne Sëriñ Tuubaa ñaan na ko ci biir mafatihul bisr yàlla na ko defal muy waqut li yal yawma maqamati rijal bila tazalzulin wa bashir bi nijal barkab Cheikhul Khadim barkab Cheikhul Khadim barkab maam Cheikh Rahim Fall boobu lu wër dina waaye barkab noo ngi siyaar ñëpp ñoo ngi leen di sant ñoo leen di màggal waaye di jël siyaar bi ko ci loxol sëñ Abou Mbacke Baraka di siyaare rakkam yu baax yëpp góor jigéen Cheikh Abdou Karim Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal Cheikh Ahmadou Cheikh Abdou Fatah moom Cheikh Amadou Fadal Cheikh Ahmadou Rafahi moom Cheikh Amadou Fadal Cheikh Ahmadou Badi moom Cheikh Amadou Fadal euh, Serigne Cheikh mi moom Cheikh Amadou Fadal njabootu Cheikh Amadou Fadal soxna ummi góor ak jigéen mag ak ndaw soxna Fallou noo ngi siyaare ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax rekk ne lu waaxum gi leen moo xajul ci waañ fii rek lay xewee Mafatihul Bichri TV la télévision islamique au service waa kër Xaadimu Rasuul ñoo ngi siyaare Europe Asie Océanie Afrique Sénégal fépp fu waay nekk te dañu topp ci seen télévision Mafatihul Bichri TV jërë ngeen jëf. jóg leen leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilo guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilo yaaro ci mboolem lawlu yaw fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géeju mbindeefi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu